làmmiñee yow sëñ bi yow yaa ngi gaañ sa bopp foo foo jëm. loolu lan la. fo fan nga jëm fan nga jëm. yow loolu lijjanti fu ma jëm loolu lijjanti sa bopp yow rek la sa bopp de. yow yow xam nga ki ngay wax ko waxaat laa la wax. waaye ma ne foo jëm. waaw ah, yow yaay kan looy lijjantee fan laa jëm. ma looy lijjantee loolu. man ma sa faale wu ma la man xaw ma fu nga nga may ñëw. du ma sa morom. yaa ma ko war a wax yow. nga ne. yow ko war a wax. maa la ko war a wax. rus naa la de père. man rusuma la. ah yow yaay kan noo dem de. Eh, sëñ bi kaay mënoo dem mënoo dugg ci kër jàmbur gi yow yaay tiis sa bopp wala man maa tiis xam nga man maay kan. barka ah danaa la yàq de. jëntawu ma la man mënoo ci man benn dërëm. nga ne tu te prends pour ci man tous. koy wax ay tous yooyu. yow man du ma sa billahi dama lay soppi golo. père ba ba ba. Ah, ah, ah. père ah ba fi ma yor. fi ma yor ba bay ay oui ay waay. réglal sa jamono laala tuma suuf laala tuma suuf. réglal sa bopp. Eh, eh, laala tuma suuf laala. réglal sa bopp laala. Ah. Eh. Ah. bàcc. yow da ngaa doon. mooy jaay pere. bàcc yoo xam ne xamoo kii mooy sama sëriñ. waaye dama kaa bëgg xam li jëntuwuma ko pour xam ko sax. yow torox nga. naat. yow yow torox nga. yow toroxati nga ma soppaliko la. déet déet léegi la toroxati nga. yow tey dinaa la soppaliko la. la ko ñaan mu ngi commencé soppeeku. sëñ bi mu ngi commencé soppeeku déet. sëñ bi sëñ bi maa la ko ñaan. sëñ bi sama maa la ko ñaan sëñ bi. kii bu dee yàlla tawal bulet. ba ci yow léegi kii naa ko soppaliko. déet déet bàyyi sëñ bi. kii dinaa damay def sa di yëy li lamine na yow ma ne demal. kii gerte sëñ bi. noo ci man tubaab ma ne demal. waaw Ndiaye lu xew koy xeexal wuy ma. Eh, Ndiaye defal ndànk. sëñ bi waaw alaaji wuy ma koy xeexal kii. sëñ la def. sëñ bi maa ngi koy tuub. yokkal la sëñ ah, man kat. dama kii kii kii kan kii mooy Serigne Bawal. sama Serigne. daa jógee fee ca Bawal. fii nii si Kousanaar. Uh-huh. mu ne daa ñëw woor si uh-huh. fii bi mu ñëwee uh-huh. gis nga uh-huh. ma dem fonk bi ma ko fonk ma dem wutali ji ko ndoxu ndoxu lewa pour mu naan dëgg ndaxte bi mu ñëwee laa ne soxna si bu mu naan benn ndox budul lewa man kay seen naa la woo naa la ma ne la gis genn ma lay woo ñaari yoon ñetti yoon wuyuloo ma ma yaakaar ne suñu xuloo barki démb ba nga jàpp ba léegi waaye man ginnaaw seeru ramadan lañ nekk lépp lu ma jàppoon bàyyi naa ko billaay sagam sëriñ bi moo ñu seet si. sëriñ Bawal. muñal muñal mu muñal muñal. kii kii tamit. ma présenté la ko. muñal muñal. nattu la nag nag ci man waaye nag xel bi neexul waaw day day daanu. nakam loo gis. jàppal kii kii mooy sëriñ Bawal kii la. gis nga bërëm yi ñu takkee. waaye waaye sama doom bi. teg na ma naxar. ana uppukaay yi. teg na ma gàcce ana ana uppukaay yi. déet déet déet déet jaru ko yow it. Hmm. ah yemal fu ñu yem loola. Hmm. ndagam xel bi neexul. Hmm. xam naa la. dañ ciy boole lu si bokkul. ah waaw waaw. comme toll nii mag boo gisee ma def loolu. Eh, eh, sama xel daa dem fu sori. waaw ndax ñi bu bu yomaat yaa ma mu bu mu muñal muñal. xam nga man lan moo ma. Eh. xam nga lan moo ma si métti sëñ toraxal bi nga xamante ne sama doom bi bàcc ñëw na di la ko def. nga jógee fee ci bawal ak ca xam-xam xam ñàkk xam wallaay ñàkk te nee nañ. alxulamaa u warasatul anbiyaa yi mm-hmm. borom xam-xam yi ñoom ñooy donn yenent yi eh! kon boo kii. bu amee xam-xam bu toll nii. Mm. jógee fee ci bawal. ñëw kusaanaar. Mm. bàcc di ko def nii. ñaaw bi lay ñaaw sëñ bi seen naa la sëñ bi maa tuub naa ko. jéggal naa la. te duma ko topp dara. bu doon ak yow fii lay nekk ñeenti tànk la yor. alhamdulilah di copp copp fii. kon delloo delloo genn. delloo naa ko. delloo genn delloo naa ko. alhamdulilah alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah waay waay bu ko xoolee bu ne la. alhamdulilah xoola ñun bàyyi ñun duñ ko def. billahi man duma ko def. te kii di bàyyam kii. ah ah Ndiaye Ndiaye Ndiaye la garmi la. Mm-hmm. ay ah